ñi fi ne mënuñoo gañeel Macky Sall loolu laa gëm ñi fi ne di nax président Macky Sall di def ay nekk ay dealer ñenn ñi ay opérateur économique yu bëgg ay marché lañu bu ñu demee bu Macky Sall génnee ñu sanctionné ko ndax ñenn ñi woteeluñu Macky Sall sax ci législative yi pour di ko wan ne amoo fi ay nit pour ñu jox leen ay marché ak xaalis te marché yi ñuy laaj mënuñu ci dara am na ci ñuñ ci joxoon marché nangu nañ ko leneen li am na ci ndaw soo xam ne it toujours mi ngi nax parti bi yàq na parti bi te bokku fi woon ndax moom bu doon mooma Macky Sall du falu ndax da ko doon xeex bi mu daanoo da ko doon xeex mësu koo voté ba nax leen ñu jox ko xaalis bu dul jeex muy jaxase nit ñi kon loolu moo xew fii. Touba lifi fi ne bu ko président cautionné du gagné élection yi Touba loolu moo wóor ndax ñi fi ne di dem ci moom di ko laaj xaalis di ko def seeni poche xam ne dañoo xiif. man législative yi def naa fi plus de cent millions ñu yàq élection yi te ñi ko yàq bëgg Macky Sall jox leen xaalis a tax. te nii ñu bëgg a doxee buñ ko doxee mën naa am problème loolu moom maa ngi alertu te it lii wax naa ko xalif général des Mourides ci suba ndax falaa jullee kon loolu danaa leen ko yëgal foofu lay yem du ma ko weesu maa ngi alertu président daal mu xam ne ay gor yi ànd ak moom démb ba yóbbu ko. ci pouvoir bi bu sukkandikoo ci seen i wagg fonk leen faretal leen dana gagné premier tour waaye nag bu ko nit ñi def loo leneen ba mu def ko lu mu gis ëllëg ba mu ni kat xawma ko woon la ab du juf defoon ak Ablaye Wade ay élection lañ def ñi xiif ñëpp ñi ngi ŋang te ñooñu xiif mëna luñ ko dara ku xiif